Sénégal am na histoire ju bari am na jaar-jaar ju bëri bu njëkkoon suñu maam daal dañ di dajale njaboot ji ngir rek di leen ci nettali muy lu dëppook suñu aada ak it suñu cosaan tey ji nag loolu sooxe na lool ndaxte néew na lool luñ ko faral di gis donte sax am na si ñoo xam ni xam nañ leen bu baax gaa sax bu fekkee seen jamono ñoo ñu raw fuuf ñi ki noonu laam yi itam ñoo xam ni ñu bari ràññeewuñ leen comme ku si mel ni jëmm ji ñuy gis ci photo ji dañ koy duppee yaa di koon ci ay nettali nag jëmm li doyoon na waar lool jaaxaloon na ñu bëri ndaxte da daan dugg ci ay mbir ba waral takk der yi di ko wër waaye ay pexeem ak ndogalam day tax ñu nakkaree teg loxo suñu sukkandikoo ci ñenn ñi nag moom mile bokkoon na ci mbànni yu gënoon siiw tey ragallu fii ci suñu réew kon Njaay nag bariwul ci ñu gëstu ci moom waaye ci li ñu jotoon dégg bokk na ci ñu ëpp lu ñu rëcc kaso am sax ñuy dem di lim lu tolloog fanweer ak ñaari yoon ñi tëj ko nag tëj ko ba sonn waaye saa yuñ ko tëjee day rëcc biñ koy mujjee jàpp nag juge bi dafa taxaw ni ko ci bisub tey jii bo rëccee dina la bayyi dootuma la japp ya di nak taxaw ne ko tay ji buñu aljuma ba pare dina recc muy wax jo xamné ñu bari ci bi gëmuñu ko woon ñi daal di kay japp tej gannaaw nak ba loolu amé ñi tej ko ci biir kasso bi danaka ci benn neej bu rukkee nga xamanteni ni ñaari buntu ñoko séparé bi waxtu bi joté ya di dey kenn gisatu ko ñu bari nag xamuñu fu mu jaar tey ji nag jëmm jooju lañu fas yéene gëstu ñu ngi nii nag di génn Dakar tuuti jëm ci côté mbuur lu ñu gën di génn muy gën di tàng ñu romb nag ay village yu bari ba dugg ci biir mbuur waaye dinañ dawaat tuuti ndaxte kër Gondé lañuy jëm kër Gondé nag soriwul dara ak Ngexoox kër Gondé nag mësuñu fee dem waaye si li ñu jot a dégg nag dëkk boobu la yaa di kon juddoo daanaka ci atum 1922 muy lu yàgg lool ñu laajte nag ba ñu woññu kër gi nga xamante ni foofu la màggee ci biir dëkk bi waaye mel na ni fii de xam nañ ko bu baax. Babacar Ndiaye mooy turam dëggantaan waaye turu Yaadikoon bi mooy moom mooy yaayam da am lu mu da daan def lu mu am rek dem bi bi mu moom bi mu ñëwee nag ñu ne ko yaay yaa fi ñëw di ñëwaat yow yaay yaa di yaa dikkoon mooy tur yara dal xam nga yaa dikkoon toujours wala fi dañuy wax ne turu turu nit koo xam ne daal bon le comme boo juree doom rek ñu ne doom ji dellu na wala doom ji dee na wala daan daal sa njaboot du taxaw toujours dañ lay tudde comme yaa yaa fi ñëwoon mu ne yaa dikkoon mu ne kii de moo fi ñëwoon mais lee mu dem moom la ñuy wax yaa dikkoon waaw mooy faral tur mooy waral tur yooyu turu le ay sagar ay sagar cën yooyu yëpp ay turu turu yara dal la. wala ñu ne kenn mu ne kii de kenn du ko xaar ndax lee mu dem wala sagaru sën loolu mooy turu bonle soo bonlee dañ lay wutal tur yooyu. affaire nit ku ñuul yi daal ñoo koy def. yaa di kon nag ñu bari ci génération bi mujj xamuñu ko moom nag am na jaar-jaar ci histoire Sénégal ndaxte jaaxaloon na ñu bëri raw ci dolli takk der yi nga xam ni lajaloon na leen lool moom nag. ñoo ngi ko doon woowee ci turu le Robin des Bois sénégalais di nit ko xam ni miinoon na lool àll bi fii nag ñu nekk moo di Kër Gondé moom nag daanaka fii la juddoo fii la cosaanoo te fii itam la ñàkkee bakkanam ci ay dégg-dégg nag fii dey la mbokkam yi nekk itam bopp ba léegi tey nag ñu fas yéene dugg ci biir Ngexoox fexe ba gisanteeg njabootu yaa di koon ñuy laajte nag ba daal di dugg ci biir kër gi nga xam ni la yaa di koon màggee. yaa sama maam la. ante kumba Diop moo jur yaadikoon Njaay ma jigéen Diop jur yaasin jonn ma ante kumba ak ma jigéen Diop ñoo bokk ndey ak baay yaasin jonn moo jur sama papa Mbay Fay ante kumba Diop moo jur yaa di Njaay. fii si kër Gondé ji fi la cosaanoo. fi la nekkoon fi la defee ndawam fi la defee léppam. suñu sukkandikoo ci kàddu yi nag way jur yaa di koon woon ay doom. moom yàlla def na ñi mu bokkal ndey ak ñi mu bokkal baay ñaar dong lañu ak moom muy ñett. ñett bant ñu yi yaa di koon Njaay Caam Njaay Mareem Ndooy Mareem Ndooy moomu ñetti doom la ko yaari doom la ko yàlla jox yu jigéen muy alkaati Géey ak ak kii Faatu Géey alkaati Géey moomu doomam ji mu jur. moo ngi ya di ko nak amon na ay soxna waye ak ñooñu jottu ta am ak ñom dom amon na ñaari soxna bi yalla defee mu ko ñaari soxna yoolu te fekk mi ngi fi sila takkat banen soxna mbuur ñaari jabar la amon ku ñu wax maymuna fay ak ku ñu wax ndey faal ñaari jabaram yooyu yalla def na nak amul ak ñom ben dom ñom ñepp ken amu ci dom yalla def mu taggo ñaari jabaram yoy mu takkat benen jabar mu takkaté benen jabar jabar jooju amuñu doom mu bàyyi ko ba muy gaañu yàlla def na boobu amul jabar. bi muy gaañu moom nekkul ak benn soxna. sëtam si nag mu ngi dëggal tey firndeel ay kàddoom ndaxte moom mi le xamal nañu ni bari na ñuy ñëw di mbubboo naan mbokk yaa lañu waaye moom mi le xamal nañu ni kenn ëppalewu ko ci yaadi. yéen ñi fi ñëw fii di ñu laaj damay sawar si di leen ko wax ndax dama bokk ak moom. laxuma leen ngir wut alal waxuma leen ngir wut dara mais ngir mu leer ma ci yàlla kooru yàlla gi ne dama bokk ak moom moo tax may wax ak yéen ñoom nag lu bari ump na leen ci dundu yaadikoon lu bari ba mu des baaxaayam ak yërmandeem bu mu amoon ci ñoom ak waa dëkk bi mu doon nag nit ku baax nit ku bëgg nit nit ku bëgg xale nit ku bëgg yërmande ñëpp la am seen yërmande bëggul gis kenn ku sonn moom ku sonn ku sonal nit rek lay bañ ku mu sonn ku mu gis dimbale na la xale nag surtout xale xale la gënoon bëgg. dundam moom xale moo si moom la gën a bëgg xale moom bëggoon na ko trop te bëgg na nit tamit te nit ku baax la daal. ah li ma dund ak moom te duma ko fàtte moo di yërmande ju amoon ci ñun am ko ci suñu waajur. ndax suñu wajur doonul won jaxlé dara Lo xamné ne nako rek ya diko ndey taxaw fajal ko ko. ñuy fàttaliku nak seen yi tout tank ak jëm joju li bima ma xalé buma bu won kërëm lay dem fofu lay yendu suma yendo ba ngoon bañu ñu añ ba paré bu may ñibbisi mu ànd ak man suma ñëw ba ci talé bi mu arrêté auto donte auto tubab la sax bu ko arrêté day taxaw bu auto bi taxawé mu ne ko yobul mako ba kor kër gonde ci croisement ba oto bi day ñëw ba ci bunt bi foofu noonu tali bi mu taxaw ma wàcc yenn saa yi sax damay dugal ba ci biir dëkk bi. yaa di ko nag ràññee woon nañ ko lool ndax xam-xamam ndaxte doon na ab ndongo jaar na daara. jàng na alxuraan li ma xam ci alxuraan ji nag mu ngi jànge na daara kër Thiam moom xam naa ne jàng na fa. kër sëriñ Thiam foofu moo doonoon euh, palaasu jàngukaayam sëriñam foofu la nekkoon. loolu nag ndaw si di ko dëggal ndaxte. jëkkëram ak yaadi koon ay xaritu benn bakkan lañu woon ñoo bokkoon barab biñ doon jàngee alxuraan. ñoom ñaar daal xari xaritu benn bakkan la waaye daara bi kooku nijaayam moo ko jàngal nijaayam de ko naa baabi caam nee nañ moo ko jàngal alxuraan léegi mu sama borom kër tamit baabi kaay caam moom nijaayam la. ba tey kooku tamit Babacar moo ko jàngal alxuraan ñoo bokk nekk ci daara bi. lu ma am ginnaaw yàlla foofu la ko amee. borom këram nag nekkatu fii génn na àdduna moo tax àdduwul ci suñu mikro pour sëtu yaadikoon yi nag ci li ñu jot a forandi ci seenub kàddu way jur jëmm jooju di yaadikoon mu ngi sababoo ci daara ji ndaxte lépp lu nekk ci moom daara ji. la ko jëlee sama papa moo doon jarbaatam mais moko ko magoon moo ko jëkk judd bi mu nekké xalé daf dañ ko téla duggal dugal daara muy jang alxuraan nee bi muy jang nak dafa doonoon nit ko xamné dal dem bi mu doonee xalé dal dafa ragalon bu mu bu mu bu mu jàngee foofu ba di dem dal mom iswaram dal da dan dem ñu naan ya di ni la mel bandi la ni la te fekk na du loolu pour njabot ji nak dafa am luñ ko def loolu waral mu tambali di dugg ci lu bëri pa bi ne serignam serign bi nak exactement xawma ban serignam mo am lu mu ko def lo xamne ne defal nako ci loxom neena bi mu joge ci lolu ci la commencer nak togatul nak dalatul lu nek nak mu dugg ci lu nek mu dugg ci dal di jaar jaar yo xamne dal yoy li kaddu nak waral ñu doxantu ba kër caam fi nga xamanteni fofu la daram nekkon ngir gastu loolu le bi nak agsee ñi fekk fi ben pas bu ñuy woowee Karamo Xoccaam léegi moom mile moo fi nekk bi ñu egsee nag ba fësal ko yooyu le kàddu moom mile xamal nañu ne xam na bu baax yaa dikoon waaye rakk papam bi fi nekkoon moom moo ko yoroon loolu le ko joxoon nag daanaka ab muslaay la ab téere boo xam ne da koy musal ci lépp lu mu daan duggu am na sama benn papa bu fi nekk nga xamee ne moom moo topp ci sama papa boobu nga xamee ne moom moom mooy mag kooku affaire sëriñ da cee mënoon da cee da cee am da cee aayoon lool ñu ko Bécaye Thiam kooku moo koy defaral ay téere yi nga xam ne moo koy musal kooku di ko defaral ay ay ñaan di ko defaral ay téere. Karamoxo nag firndeel nañu ni mbëbëtu baayu yaa dikoon moo di woon na doomam ñëw jàng si si daara ji loolu de la mbokkam yi taxawal ak kilifa yi fa nekkoon. ba waral ñu indi ko fii papam mu génn àddina dafa digg dafa dafa dafa dafa dafa bàyyi woon ci ginnaawam ne ko bu yaadi koon ma tey jàngalaal nañ ma ko yóbbul sama kër sëriñ ndax kër goonde ak fii daanaka gis nga dëkk yi ni ñu jëga ñaatee léegi bañ ko àndee fii dégg naa nag papam nag yëgul papam sax si si si si si catuwee ndax papam dafa dafa dafa dëgëroon dafa nekkoon góor bu ñeme woon léegi mu ne nañ ko nañ ko ko andil fii mu jàng fi alxuraan léegi bi nga xamee na kii nañ bi nga xamee ne mat naa dugg alxuraan ñu andi ko fii mu di fi jàng alxuraan. ci ay kàddoom nag foofu la yaa di kon tàmbali dugg ci ay mbir yu doy waar bu si njëkk moo di bi mu jotee ak benn ndongo boo xamante ni ñoo àndoon doon rëbb ci biir àll bi. am na benn moromam moo xamee ne ñoom tamit yoo nekk ci àll bi di rëbb. dàq am na rab boo xamee ne moom la ñu dàq seen xaj bi dàq ko eh, rab bi fi ko fi ko fi ko xaj yi fekk na sore na sore naag ñi nga xamee ne ñoo moom xaj yi léegi ñoom ñu daal di nangu nangu nangu rab bi si xaj xaj yi balaa ñu koy balaa ñu koy kii ñoom ñoom ñoom ñu rendi moom moom yaa di ko yaa di koy jàpp rendi ko nag ne du leen ko jox ñu xëccoo loolu xëccoo loolu xëccoo loolu ba def ñu ñu xeex ci mu ko kooku si tànk léegi bu ma ko defee gaañu gaa eh, gor gor bi métti na lool ñu daal di ñëw dem kalaame ko kergonde loolu nag magu dëkk bi seetaanuñ ko benn yoon ba waral ñu jël ci seen matuwaay. ñu daal ne kii daal dañuy dem ci sëriñ ba wax ko pour ñu jéem koo tiital ndax kii buñ ko bàyyee ci lii ba lii paase dina def beneen dégât boo xam ne moo gën a kii moo gën a moo gën a paase lii ndax papam mag ñi nga fa mag ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon xam nañu xam nañu xam nañu góor gi nu mu mel mu meloon léegi bu ko defee ñu ñëw fii wax ko que booba temps ki fi nekkoon mag si biir kër gi fii sama magu papa la woon Modou Lamine Mouhamed Lamine Thiam lañ ko doon wax moom moom moo nekkoon sama taawu maam sama taawu maam bi nga xam ne moo sanc dëkk bi nga xamee ne moom lañ tudd rakku yaa di koon Njaay ñu di ko wax Caam Njaay def mag ñi dañ la daan dañ la daan dénd ay ponkal la ñu wut ñu téye kii téye loxo bi kii téye loxo bi kii téye tànk bi kii téye tànk bi ñu jënd la léegi ñu wut koo xamee ne moom mooy dóor kooku dóor ko nag buñ ko dóoree rek bàyyi ko ñu daal di jékki-jékki rek mu daal mu daal dugg ci àll bi. ñu fëggoon nag ni yaa di dina réglé waaye mu doon ab nitu àll tey féetewoo ci biir àll bi moom nag mu daw dëkk bi géej fi lool. loolu nag waral ñu toftal ko turub le Robin des Bois mu di jëmm joo xamante ni nii miinoon na àll bi lool. mu dem ba ci benn garab bu rëy rëy defar fa loo xamee ne comme espèce comme tàgg doon daal fu fu nit mën a fu dencu daal bu bëccëgee foofu lay dem yendu day yéeg ba ci kaw garab gi daal dem yendu foofu waa kër caam yi ak waa Kër Gondé dugg ci àll bi di ko wër boobu àll bi lëndëm na nekkati ñoom bu ñu wëree noonu di di di di di wër di wër di wër di wër di wër léeg-léeg ñenn ñi ci garab gi nga xamee ne moom moom foofu la dem toog foofu la dem tëdd ci ci ci kaw garab gi mu def espèce lu mel ni comme njowaan ci xob yooyu ci biir xob yooyu ñoom foofu foofu foofu léeg-léeg ñu ñëw di yendu ci ron ron garab boobu dem. léegi su ko mu nekk fa nekk fa nekk fa nekk fo nekk fo nekk fa nekk fa ba suuf sedd nga xam ne léegi guddi na suuf si sedd na mu daal di fay jóge daal di ñibbisi dem Kër Gondé bu demee Kër Gondé xaritam góor gii moo ko doon nettali Baye Baye Moussa Ndiaye moo ko doon nettali rakkaam bu ñuy wax Racine moom moo ko moom ñoo ay morom lañu moom mu yaa koon ay morom lañu bu ko defee mu daal dem foog a néeg Racine ñoo ko demal nga ne sa yaay dama ma kat ma am ma am ma am lu ma lekk man liñ may liñ may wër yëpp. du fanaan ci àll bi ci sa néeg bii laay fanaan bu bët setee nag comme yow yaay sama xaritu benn bakkan bu mu senn fen bu ko kenn yëg. foofu nag la yaa di nekkee nit ku am bopp mu def nag lu ñu bëri ragaloon a def dugg ci àll bi ci lëndamaay bi heure bu nekk waral mu gis fa ñu bari gis fa ay rab yu bari ci biir ci biir eh, kii boobu nag la gisanteeg ay jinn ay jinn si àll bi boobu àll bi àll bi lëndëm na léegi nag jinn yooyu nag am na loo xam jinne yi ñoo ko ko jox mu am ay nettali yu bari yu si jub bokk na si benn jëflante bu mu jëflanteeg benn rab bu ñu naan kañ fële ci àllum kañ amoon na benn ku fa nekkoon koo xam ne moom la ñuy wax kaañ rabu àll la léegi rab woowu yaa di kon njaay moo jóge fii dem di wër kaañ ci àll bi kaañ di wër yaadikoon ñuy wërante di wërante di wërante ba yàlla def ñu daje ci àll bi nee na bi ñu dajee ci àll bi kaañ ne ko yow yow yow la kan mu ko yow yow la kan mu ne ko yow xamoo man la mu ne ko déedéet man xaw ma yow kan mu ne ko man maay kaañ mu ne ko man maay yaadikoon njaay mu ne ko léegi yow lan ngay def ci àll bi mu ne ko yow yow laay laaj yow lan ngay def ci àll bi mu ne ko man fii maa ko moom mu ne ko man tam fii maa ko moom paa bi nee na si lañ nekkante ñoom ñaar kaañ ak yaa dikkoon ci àll bi kaañ ak yaa dikkoon nee na ñuy xeex ñoom ñaar kese ak yàlla ñuy xeex di xeex. ñu jëflante jëflante yu metti ba yaa di mujj ko faat. moo jëlee rab boobu ci àllu kaañ boobu ñuy wax yaa dikkoon njaay moo ko jëlee foofu. yaa di nag ci loolu la nekkoon nekk ci nag waaye bëggul woon waa dëkk bi gis ko te yëg ko bi ñu xamee nag ñi ngi koy waaj a xam moom bile si la daal di daw dugg biir Dakar. xamee bu yàggee nañ ko gis mu daal di jékki-jékki rek dem dem Dakar ba mu demee Dakar boo paasee Dantec di dem palais de justice yooyu si si si si si géej gi am na ay xunt yu am na ay ay xeer yu fa nekk nga xam foofu la band yi yi di nekk foofu la dem nekk dugg si dugg si biir ñooñu moo yàgg mu jàppanteeg ñooñu jàppanteeg ñooñu ba mu nekk foofu chef. gannaaw ba mu jugee si jaar jaar boobule Père Kara moo xamal nañu ni ci la daal di dugg ci biir armée bi. tàngu guerre bi mu daal di rengaase rengaase dugg Sordaal si tàngu tubaab bi mu rengaase dugg dugg mu doon nag ab bañkat ndaxte daawul woon nangu kenn kuy foqatal di jaay doole ak ñàkkal kersa doomu aadama. dégg naa tubaab yi mayu leen jàmm moom daal tubaab daal ak kuy tooñ ci kanamam. loolu mooy mbañam boo tooñee nit ci kanamam rek mu jëlal ko paar te bu ko jëlee paar rek kii léegi mu daal di nekk ci arme bi di nekk ci arme bi nekk ci arme bi la jël loolu tubaab yi tubaab yi mu jëkkoo libéré par force. bu mu jugee ci loolu nag ci la dugg ci li bi di woowee ab banditisme donte sax moom mi lu ko taxoo a jóg mu di xeex képp kuy toroxal ak naqaral doomu aadama per Karamoxo moom jàppewu ko lu dul ab banditisme. mu génn nag nekk ci affaire am yooyu di def affaire banditisme yooyu di dem ci hôtel yeeg dem cinéma di ubbi di dugal di dugal nit ñi. Buuba chinois nag xam na ko bu baax jëmm ji nag xamal nañu nii yaa di taxawaayu mag dëgg la amoon ndaxte daawul nangu benn yoon ku leen jaay doole ak a foqatal loolu nag. tax mu daan dox ci lépp lu ñu bëggoon. xam naa ko sama mag la daanaka kenn la koo xam ni moom. moom du sàcc du bandi. c'est-à-dire c'était un révolte. bañkat la woon comme man. yaa di ko ni ñëw dugg cinéma corona xaw ma ndax xam ngeen corona boobu xale biir rëbës bu ñëwee man man boobu j'étais jeune. bu ma ñëwee xale yi ne ni eh, dañoo bëgg a seetaan temps yooyu film indu Dara Singh ñu bëgg ko seetaan yaa di ko ni da doon bunt bi ne dugg leen ñëpp dugg ma bokk ci après empire ba ma demee ba dund loolu ma ñëw en pire xale yi may gis xale yi bu mu ñëw buuba suda eh, buuba suda dañoo bëgg pomme dañoo bëgg banane orange ma ne pulo photo bi au temps de Senghor de may mayal xale yi waaye pomme orange ak banane ana xaalis may rek bi sabilillah ma bañ ma jël table bi ko muy ay jikko Roy Noko Cimom. Wow, sama magro. Pas kini qu'il n'était pas mauvais nak ya nag yaadiko nekkul woon ab bandi Waye, nitup degele won, nitup ngor te loolu lee jaralon nako ko lu nekk xëy na ñi mu daan àndal ñuy topp ci moom ñooy def seeni affaire mais mom moom soxlawul won alali jàmbur te ku am fit la woon nag ku jàmbaar la xam-xamam moom foo ko nattoon moom weesu na ko. yaadikoon nag demoon na ba jaaxaloon ñu bari raw ci dolli waa dëkk bii nga xam ne taawuñu woon nelaw ndaxte ay takk der dañ fi daan jaabante rek ngir seet si jëmm jooju ne dañ koy jël si. ay gendarme ay yu kenn xamul paa bi nee na bu ñëwoon day am nañ benn néegu ñax bu nekk feneen day dugg ci biir néegu ñax bi tëdd nee na yenn saa yi dañu ñëw di ko gendarme dañu ñëw di ko seet si bu ñëwee ne. ana Yaadiko Ndiaye fii la dëkk paa bi ne fii la dëkk ana Yaadiko Ndiaye sama papa ko ah Yaadiko Ndiaye da nekku fi waaye lu gën a garaaw ci mbir yi moo di nii Yaadi daf leen daan réer te ci biir dëkk bi la daan nekk. mas nañu toog fii si suñu ja jàkkaarloog daara bi di di kii noonu mu romb ñu dugg ci biir kër gi booba temps tubaab yi la yi xonq coy ay sor daal ñu ñëw. ñu ñëwee ñu ne ndax yaa di koon njaay fii la dugg xam nga rek xale yi am na ci xale yoo xam laa seen làmmiñ moomuñu ko ñu ne mu ne mu ne ah kay yaa eh, di koon am na ku ne yaa di koon dugg na fi ñu ne ko déedéet yaa di ko sëñ bi daal di mm. boobu nag la tubaab yi amatul jàmm nag néegi fu nekk ñu dugg fii dugg si ron lal yi waaye kenn xamul yaa di koon suuf la jaar kenn xamul kaw la jaar kenn gisu ko duñ ko sax gis ba di ko teg loxo doom dafa amoon loo xamee ni sëriñ bi da koo defaraloon loo xamee ni muy bàyyi kaay càmm moom day lëndëmal man ngaa taxaw si wetam nii doo ko gis waaye moom dina la gis. mu amit sax ñu ko daan gis waaye daf leen di teg xel ba rëcc leen. ku ñëw jël si ko rek mu rëcc du ñu xam fu mu jaar ñëw te léegi ñu laaj kooku ne ko yow est ce que mën nga ko jëli mu ne leen kii da mu ngeen ma ko joxee man dinaa ko jëli dinaa ko indi kooku ñëw fii fekk ko garam place mu toog mu nuyoo ne man damay te yaa dikkoon njaay fekk moom mu ngi toog yaram place bi moom ci boppam mu ne ko kan mu ne ko yaa dikkoon njaay laay laajte mu ne ko yaa dikkoon njaay mu ne waa bare mu ne ko yow est ce que yow boo gisee yaa dikkoon njaay di nga ko xam moom ngay seet exactement mu ne waa mu ne boo gisee di nga ko xam mu ne waaw su ma gisee dinaa ko xam de mu ne ko kon xaar ma yóbbu leen ñu daal di dugg ci oto bi taal oto bi dem ànd ñoom ñaar rek ak yàlla ñu dem dem dem dem ba sur ci àll bi mu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko kan ngay seet mu ne ko yaa njaay laay seet mu ne ko yaadikoon njaay mu ne waaw mu ne ko loo koy doyee boo gisee di nga xàmmee yaa dikkoon mu ne ko waaw mu ne ko loo koy doyee mu ne ko dama koy jël si mu ne ko bon mu ne ko waaw mu ne ko man mii ngay waxal maa yaa dikkoon njaay mu ne ko ah mu ne ko waa ci àll boobu nag fa nekk di joteek moom ñuy histoire fekk mu ngi sol tëneem ba mu sumbi tëni bi waa ji soloon moom mu sol ko mu sumbi yëreem mii mu soloon mu solol ko waa ji ndax moom lépp la noon da dawal oto def lépp moom mu yéeg ci oto bi dawal ko bu buntu gendarmerie mu taxaw gaare wàcce waa ji teg ko fa romb leen dem yoonam. donte sax day jafe pour ñi jàpp ko waaye dina am ñu mujj teg loxo yaa di moom nag buñ ko xasee ba jàpp ba tëj ko kaso daanaka du fa def ay diir ndaxte day rëcc ñu dem sax bay lim ci lu tolloog fanweer ak ñaari yoon ci lu mu jot a bu ñu ko dugalee kaso daal bu ñu ko tëjee ñoom seen bopp ñoom ñu ko tëj du ñu xam fu muy jaar ba dem dañuy ubbi rek duñu ko gis. kaso bu ñu ko tëj day jékki-jékki rek ubbi kaso bi ne ku ñeme génne. kaso bu ñu ko tëj ñaare dina dina ubbi kaso bi eh, eh, nit ñi nañu génne te duñu xam lan lan la ko ubbee. bu ñëwee fii ñaare bu fanaanee bu bërsëtee balaa muy def dara dina dem daw def seen entraînement yooyu daal di ñëw sangu. daal di sol grand bu baam daal di lal sajaada bi si ron garab gu dóobaale bu mag moo nekkoon si digg kër gi jàng alxuraan li mu war a jàng si si si ay xiji bi alxuraan mu jàng ko pare daal di jëlaat alxuraan bi dugalaat ko foo nga xam ne fa la ko dugal daal di koy delloo daal dem sol ay dëgg dëggis maam. kàddu yooyu nag soxna sii di jabar si karamoxoo di ko seede. yaadi nag moom nii la ko karam ni la ko kii waxee rek noonu la demee affaire am moom ku yëngatu la woon. ndaxte lu mu doon def noonu di ko def di ko def di ko def bi mu ni feeñee ba nit ñi xamal ko ko daf leen a daw nëbbatu leen yaay mu ne man de sama doom ji dina dee ci àll bi mu kiyee mu ne yaay man duma dee dara jotuma soo yeboo booboo tëddee nelawal moom nag ak yaa di ay mbokk lañ woon itam dégg-dégg yi mu daan am si jëmm ji nag taxoon na mu ragal ko lool waaye bi mu ko gisee ba dugganteeg moom lu dul yërmande la gis ci moom man nak dama don ragal ndax niñ ma ko niñ ma misale misalam dal moma ma ragal lo ben yon la fa massa dem and ak jabal xaritam boobu ma fa demé kéro ba ñew ñëw la ma tibbal ba yëkëti xaaliss tekki ni ma yobul wa sama baay la moom wax dëgg yalla sama baay la ndax sama mo sama baye bokk deret muy dëggal te diñu xamal ni musul tek fitna wa dëkk bi wayé dalen don ar kër gi nag moom mosu koo caaxaane ndax man balaa ma fi sëy si la ma sama maam doon wax ay jalooreem booba xale laa ba ma fi ñëwee mu di ma fi fekk si ñoo ñu wax ko ne ah yow de ñun de duñu jabar ji sa mbokk la bi ma laajee bu mu laajee ma wax ko lépp mu ne mu taf ma ci kawam ne ma laa yow sama doom nga biraan Diop maa daan jël ay ay ay moom nag muy dellu siwaat si benn histoire boo xamante ni nii amoon na fii mu yi benn sàmba boy bu ñëwoon di wër yaadikoon moom nag daf ko doon wër ngir natt dooleem waaye ñoom ñaar jaafonte nañ jaafonte bu metti mu ne ko waaye yow nga ne koy laajte mu ne ki ñuy wax ne tund wi yëpp moo fi ubale moo man ñëpp kooku moom laa bëgg a gis te xam ne man gisuma benn doom góor guy dox koo xamante ne bii mënal na ma dal ba ma la ba ma làngoog moom ba tàggee koog moom mu ne ko te njaay yaa di dong ngay laaj yaa di koon njaay mu ne ko waaw mu ne ko maa ngi nii mu ne ko déedéet du yow mu ne ko man mii ma yaa di njaay bi nga laajtee fuñ la woon mu ne daj maa joxoñ ne kër gële la waaye borom nanguwul la yegsi mu ne ko la tax yegsiwul moom xam na ko man mi maay njaay maa yaa di koon njaay léegi nag pareel ñu jëflante soo soo jëlee ndam li nga yóbbu ndam soo su ma amee ndam nga dem bàyyi maak sama ndam dégg naa mook moom mook moom ba waa ji nekk ci diggante deew ak dund. waa koñ bi daw ñëw ñemewuñoo yegg si ndax ragal nañooy dem bu meree moom dootu dootul xaajale sa jànj ak joor lay boole kenn ñemeñu la dugg. waa ji nag jërewu fi dara lu neex. looy wax mu ne dama naan dama doon ne man maa man ñépp waaye gis naa ko ma man baal ma àq. lii moom dootul am mukk mu ko ba ca mbedd ma mu ne ko aca dema boo demee wàccee nga ma ndam li demal ak sa ñàkk am ndam man mi maa yaay di ko njaay te defuma la dara sax dama laa ñamal rek nga pour nga mën a dem nittali ji moo tax waaye kon dama la fiy rey Pakara Moxo nag di delluwaat ci benn nettali mu di bu yaa di jàppante woon ak benn waay bu jote woon ak jabaru jàmbur góor gi dem Dakar affaire Serigne Taliaas lay def góor googu léegi bàyyi fa ñaari jabaram ñun dañoo jékki-jékki rek gis ñooñu ñaari jabaram yooyu ñu boot seen doom yenu seen i ëmb ñëw na sama papa ko yaa di ko na ngay reen ci kër yaa caba jéen ak yaa seeni bu joom ñu daal di ñëw ne sama papa de yaa di koon de mu ngay reen ci kër ga te Moussa newu fa kii nga ne moo ma doon woo léegi si si téléphone bi doon ma tàggee ay dëj baayam ñoom ñoo ko nangu ñoo nangu ñoo nangu si loxo yaa di koon ndax waa ji ma lan la lan la kii rek yaari kon daal am lu mu yaari kon am lu mu lu mu lu suuf pour mu jël ko rek mu teg ko marto mu ko tegee marto rek foofu la la daanu doo doo ko marto si rek waa ji daal di tàlleeku ñaareet yaa di nag da ëpp fit ëpp ko jom. ci ay kàddoom nag yaa di xamaloon na ko ni du nitu moom si boppam nee moom. am xuyam jinne am xuyam jinne boo xamee ne moom moo moom moom balaa balaa kurpeñam di dal kooku kooku mooy jëkk mbëkk te kuy jinne ba kenn du ko gis nee na xuyam jinne la daan àndal moom si boppam loolu wax na ko mooy temps mu nekkee ci biir àll bi ba ba ba ba ba kiyanteeg jinne yi foofu. yaa di nag bala moo génnoon àdduna mujj na bàyyi lu bëri ci ginnaawam. ci mbirum sëriñ bi la mujj tey di si yëngu. ba muy génn àddina nag booba fekk na bàyyi na. affaire yoyu be don dawal auto, amona na temps mu ay camion camion ben yi di yo di jël di jël ay xeer di yóbbul nit ñi bu demee dema dema dema dem be mag ba ba kii nak dal yooyu yëpp mu bayiko ko ko ci suuf nak dal di jël affaireu sëriñ ya di ko ni dafa mujj ubi dara il apprenait le Coran borom xam-xam la won mom alcorane mom jang na lol te limu jang tamit te da daan am yu muy defar mais yooyu muy defar wax dëgg yàlla mayoon na ko ci ku mu ko ci ku mu ci séqal di nga sa xol dina sedd guy. këram da daan fees del ba ba mu ba mu ci foofu kër ga da daan fees del del del del nit ñi dañ daan ñëw ca moom mujj bi dafa bàyyi affaire affaire yooyu affaire yi mu daan yi mu daan yëngatu noonu di dematul fenn këram la nekk toog di di di def loolu muy def loolu moom bokkoon na ci ay ay ay ay man dama daan dem këram waxtu wu ne. ñu bëri si ñoom nag donte nekk ñu woon mag noonu bu yaa di di génn àdduna mel na ni ñi ngi fàttaliku bu baax. man daal defe naa ne ay 83 yooyu jëm daal defe diggante yooyu daal la war a gaañ. Ah, bi muy génn àdduna dafa feebaroon feebaroon na ndax bi mu feebaree fekk boobu tàqaliku nag soxna yëpp bi mu feebaree mu woo bi mu ne ko léegi man damaa mel ni aw xeet. ndax man maa ngi nekk ci campement ma feebar oo ma ma soxna te yéen xale yi nekk fi mun leen indi sax benn xale ngeen jox ko mu may liggéeyal paa bi ne kon awa fay sama rakk ji tudd awa fay mu ne ko kon awa na ñëw foofu di la toggal moo nekkoon ci moom. awa nag di si delluwaat. maa ko doon toggal bi mu xawee bi mu feebaree sama papa wax ma ne ma damaa bëgg nga dem sa kër maam nga di ko toggal man maa ko daan toggal sama xarit la woon nag léeg nag ñu xuloo am na bés boo xam ne sax damaa togg reer ba pare ma xulóog moom mu ne ma yow damay wax loo xam ne rek fii léegi ngay tëdd pare ma daal di dem jël cin la këpp reer bi ñu xuloo pare mu daal di may neexal dem jënd montre bu rafet jox ma. yaa di nag amoon na lu mu gënoon bëgg mu di. laaxu caaxaan laaxu bisaab moom la ngurbaan moom la gënoon bëgg daf may jox xaalis ne ma toggal ngurubaan ma togg bu toggee nag moom këram dangay yaakaar ne famille bu bari moo ne ci këram mais bu toggee moom kese moo fa nekkoon man ak surga bi mais bu bu ñu kiiyee booli bu mag la ñu yàq kër gi day fees del ñi ñu ñëw lekk. tey jii nag ñu ngi korop fii ci almeeru xoox ñu demoon ba foofu nag ngir xool fiñ ko denc. ñu ko ci kaddu soxna si nak di sëtam yadi bëggul won ñi rob ko fudul ci wetu way juram waye loolu le juta antu mais bi mu laataa febar bi mu febaré non ba xamné ne sonul ñëw na fi ba ba muy ben dese bu fi amoon suñu ben rakku papa mu tedd ci gataadu garab garab gaangi fele mu tedd ci taatu garab gi ak ñom ñuy waxtaan mu ne leen amna sama dundu de soretul mais buma genné aduna nañ ma indi ci armée li kër gondé fi sama waajur ne ñu denc ma fi légui bi nga xamné yalla def na mu génn aduna sama papa amna na rakam bu nekkon campement légui rak joju nak bi mu ñëwé ñun biñu taggé sé pa bi nekkon na ñëw ndax di dikoon dafa décédé bi pa bi laata dem fekk na koku gasal nako ci campement ci armée li foofu ba paré légui pa bi ñu mu ne ko man de gas na ba pare mu ne ko waro wona gas ndax di dikoon fi lañ ko wara denc kër gondé mu ne ko ah kon de xaaral ma dem suul ko paa bi ne ko déedéet kan mu ñu gas ba pare kenn du ko suul bàyyil kon ñu denc ko fii looloo waral ñu denc ko campement mais kon kër Gondé lañ koy denc. moonte fi dey mu nekk paa bi di bay job xamal nañu ni xelam du jug ci yaad yi. ba fii ma toog di wax armée la dama fay ñaanal yàlla ndax man man ci armée li gardé saa yu ma demee dem tiim armée la ñaanal ko yàlla te yàlla képp tax ndax lépp ñu daan def ci man mom nak du way di sante jëm ji ndaxte taxaw na ko fépp raw ci dolli ci dëkk bi nga xam ni bu mu fi dogay ñëw gan la fi woon. xam naa ku ma garanti woon fii la itam nag ku ma garanti woon la ndax bari na lu mu def ci man lool te yàlla képp tax muy ma la ko waxee ci kenn du laal de bàyyi booy jóg kenn du ko laal te jaay tax jaay di dund moom loolu amoon taxaw ma lool di ma teg ci yoon ak di ma dimbali ci ay maslaa itam nag xam nga moom mooy lool te moom am na ci ginnaaw bi loolu passé nag xam-xam benn boo xam ne ko ci moom mu jàppale ma daal mu gisuma ko jàppale woon na ma lool nangu na maa liggéey ku ma nar a néewal doole ba nga nar a yàq sama carrière daal moom bu ko yëgee moom bu too ko defati loolu moo xam naa ko histoire bi li ma lay wax nag lo xam lu dem ci film lay doon motax duma mëna ag ci yenn ndax luy dem lu ñepp yi dégg la ñu ne boo jóg ko wax lo mo dama ko man waaw amna na lu ci nek lo xamni tay ci dëkk bi la sama walu liggéey ci carrière France xam nga duñu la ko sang sama walu France bi ñi commencé liggéey France bi ñi ko doon liggéey ci la bokk taxaw yam ma ca taxaw ak ñi doon yaq yoy nak lay baña ag àgg ko def na ca lam man nag moo xam na ne ba ñoom waa France bi jël ñëw jël ma may dafa liggéey. yaa di nag amoon na suuf ak it kër waaye kàddum yu mu mujjee fësal moo di képp ku yàkkamti ka do ko jëriñoo te loolu lay ñu bari gis nañ ko. mu gaañoo rakkaam jooju ma lay ne moom lañ tuddee sunu maam ñun ñu di ko caam caam caam Njaay kooku moo ñëw. ndax ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay waaye kooku nag ustaas la woon boobu danaan jàngale arab jubóowuñu woon nag waaye bi mu gaañoo nag te tey moo fi kooku moo ñëw dem toog sa kër ga kooku toog fa diir bu gàtt kooku gaañu nag. bi nga xamee ne dafa génn àdduna rakkam bi ma lay wax nii ne ñoo bokk ndey ak baay muy caam dafa ñëw ci paa bi ne ko man maa koy donnu waa ndax man la bokkal ndey ak baay commencé di xëccoo paa bi ne ko man de du ma xëccoo donnal. après ci la doon te fekk moom ci dundam dafa wax ne man ku yàkkamti sama dee wala nga doon sama alal doo ko jariñoo mbaa boo yàkkamtee sama dee di nga dem bàyyi ma fi gis nga ki ma lay wax nii ne la mooy alkaati géey ki ma la wax man doomam a ngi fii moo ko miireel tool boobu ma lay wax toolam bi mu jëndoon titre foncier la mi ngi foofu ci ginnaaw kii CR bu campement ci ginnaaw foofu la tool bi nekk ba tey kenn defu fa dara jaay nañ ko nag mais ba léegi tam kenn defagu fa dara ay at la gis ki ko jëndoon sax ñun gisatuñu ko xamatuñ sax fa mu nekk dafa wax kooku ne ko ñuy mi mu di ko miireel foofu ñu histoire mu ne ko xam na sama alal ngeen yàkkamti wala li ma am ngeen yàkkamti waaye boo moytul yow di di nga dem wàcc ma fi yàlla ak yonente ba xam ne ne kooku balaa miir bi di yegg kooku deena bu yàgg deena bu yàgg ay at te yaa dikkoon di dund kooku ma lay wax ne mooy rakkam yi nga xam tam moo jaay suufam soosu xaalisam boobu bala mu koo reesal dem na. gis nga magam rakkam bi la kii di wax fukki fan ak juróom la rawante ak moom na dane woon man su ma sama alal ku ko doon duma la raw ba mu deewee kooku jël place ba jaayee ko fukki junni ak juróom buntu kër gi moom dafa jënd kër si buntu jënd si biir jënd si biti ne kenn du dëkk ci kanamam moom rek bi mu deewee ki dëkk ci kanamam ki ñi ko jaay fukki fan ak juróom la rakkam jooju rawante ak moom ki ko jënd tamit noonu la feebaree ba kër googu dugg sa fi ne ay njabootam ñoo ci dugg. dëkk bii nag tur yaa di ab biddéew la fii ci mbedd yi ci mur yi turam ak fotoom rekk lañ fiy gis mu am it benn école boo xam ne ràññee nañ ko fi lool tey ñu jox ko turam loolu waral ñu fexe ba jege ñi nga xam ne ñoo sañ ci école bile ngir ñu wax ñu lu tax ñu jël bërëb boobu boobule jox ko turu yaadi. lu tax ñu tànn ko ci lu ñu jot a dëgg parce que man mi gisuma ko maa fi ñëw en 96. keneen nii mais am na ñoo xam ne si groupe bi sax am na ñoo xam ne màggoon nañ ci ronam donc lu tax ñu tànn ko parce que ci lu ñu jot a am ci lu ñu nettali dañu ne dafa bañoon injustice mooy dafa doon protéger ñëw néew doole yi néew doole yi bëgg xale. donc xale jaraloon na ko lépp ku ñàkk tamit néew doole jaral na ko lépp waaw bu gisee ne ñu ngi daanu sa kaw ñu ngi daan sa kaw jaral na ko mu ñëw jël sa défense lu koy fekk fekk ko ci waaw. ñoom nag jàpp nañ ni Sénégal am na histoire bu rëy am na histoire bu ko doy am na loo xamante ni nii waroon nañ ko sax di ko jàngal ak xamale xale yi ci biir daara yi. nekkatuñu si ère boo xam ne. dañu war a nekk di jàng ñee seen personnalité yi ñu ñu koy imposer ay Dogol ak ay ñoom Faidherbe ay kenn xamul tey ñu ngi am loo xam ne fii richesse la ci biir Sénégal ci biir dëkk bu nekk am na fa ay ñoo xam ne euh, nu mu tudd ñoom rek histoire la donc buñ ko defoon tey day tax xale yi jënd xam seen dëmb mën a préparer seen suba donc man je de phase. pour que ñu def loolu dugal suñu programme suñu réalité dans les programmes gox bi nag li fi soppeeku bëreewul daanaka bi fi yaadikoon jugeek léegi daara ji nag nga xamante ni fii la yaadikoon doon jàngee boo ko gisee doomu sa xalaat ni dinañ fi jàng arxuraan waaye mbir yi de guddi gi day am ci borub timis jëm gee xale yi dañuy wër ci digg bi ñu taal fi ay mat safara se di jolli ku nekk yor sa aluwe ñuy jàng alquran njabootu kër gonde nag raw ci dolli bu Ludul mbekté di deluat ak waxtaane ci jaar-jaaru sen mam maam le ndaxte ñom ñilé ab jambar lañ ko jappé suñu xol sedd na guy nak li ngeen nu defal fi mu nu ag yalla leen yalla fay ci barke mag wi te li ngeen di ut di ko yóotu yàlla ngeen am lu sut seen jortu ndax lii sedd na suñu xol ñun lii yaakaaruñu ko woon ci àddina li tax ma kontaan moo di yéen ñi jóg ba ñëw sama mbokk moo xam ne tey dañ ko waroon di def leçon fu ñu toll mu réer ba kenn tudd ko yéen ngeen mën a jóge lay ñëw di ko gëstu ba di ko génne dama leen a sant dama leen a gërëm jaar jaaram moom su suñu sañoon bu yàgg ñu nit ñi di ka di ka di ka di ka di ka doxee di ka waxee tey ñu wax jaar jaar yaa dikkoon ak melokaanu yaa dikkoon àdduna xam ko fierté la ñoom nag ñu ngi xamal ni jàmbaar jom ngor ak fulla la Yadi mësa woote ba yi muy sàngoo suuf moom mile mësuta nangu kuy toroxal doomu aadama waaye itam di foqatal ak mettital gone loolu le jaraloon na ko lu ne jaraloon na ko mu saafonte ak ku nekk soxna si nag di ñax ndaw yi ñu bàyyi xel bu baax ci jëmm jooju ndaxte baaxam royuwaay la ci ñépp ah xana kay yaa di kon moom dafa juddu ci giir gu baax màgg sa giir gu baax giir ga mu juddoo giir gu baax lañu ta mu ci la juddoo ndax Amadou Binta Njaay mi nga xamante bi bii maam la si moom moo nekkoon kër gonde gi fekk fi toppoon toppoon buur ba buur ba saay mu ñëw toog gonde xanaa kay eh, eh, roy ci moom te fit bi mu am ak jom ji mu am amoon na doole te dëgg si dëgg rek la ko tegoon ndaxte du tooñ du jël yëfi jàmbur moom du ne kenn du sonnal nit ci kanamam te mu fekke ko da koy dal di faj loolu bu mu amee ñi mu dëkkaloon ñëpp seen seen seen seen côté moom daal di nay feex la amoon lépp mu suturaal leen ci ndaxte kuñ ne njaayaadi fii nga dëkk loo bandi bandi bandi foofa di nga ko domb doo fa dem ndax dangay ragal a eh, jàkkaarloog moom